mbir yi nga xam ni di yombaral ñi ni tudde hackers yi wala arnaqueurs yi ci ñu mën la arnaquer maanaam di la topp maanaam di la espionner daal ci gàttal loolu la la bëgg indi leen ni leeral yii nag ay yenn réglage réglage la yoo xam ni day soxal jëmmi paramétrage de sécurité yi ci sa appareil yi bu fekkente ni topp nga nu ci vidéo bi ñu defal la ko one by one maanaam benn ci kaw ba ca des dana la mën a dimbali ba woyefal yenn xeeti njàppandal yi nga xam ni mën naa jàpp jàppandalal hacker yi kër yi ci ñu mën a am accessibilité ci say position wala ñu mën la espionner ci anam gu yomb jaare ci yenn site web yi lii la ñu la bëgg andil ay firi fàcce waaye nag ñu di la wax itam ni bu fekkente ni am nga sañ-sañu ci yow yaa moom sa jolosu muy sa appareil itam wax nan la ne la am na fu ci sa moomil yam yaa ko jënd ci sa xaalis yaa ciy jëf ak ba waaye da ci am loo xam ni maanaam waa Google ñoo koy contrôler am yoo xam ni application yi ngay installé ñoo koy contrôler waaye nag man na jékki-jékki sax barrage bi nga xam ni mooy dox sa diggante ak beneen monde bi muy monde virtuel bi wala mani ko sax monde invisible bi am ñu ko mën a bëtt ba mën a di la contrôler nit ki nga xam ne ñoom lañu ñee di contrôler saa soo xamee nag dugg nga ci application YouTube bu la neexee mën nga wër Xalam TV ginnaaw boo ko gisee wala Xamtu TV mën nga daal like vidéo bi ginnaaw ba nga ubbee ngir saa sunu duggale vidéo YouTube jotal la ko waaye itam saa su la neexee boo na mee doole sunu càllale gi nga partagé ko léegi nag wiir ko weex wi mën naa ko def noo xam ni day sombre damay wàcce ñëw ba fii ngir ma def ko nag thème sombre dama ñëw ba fii nii ma wàññi ma bës fi mu bind thème sombre su ma ko bësee écran bi day daal di noir lii nag moo gën ci ay gët kon yow mi nga xam ni yaa ni topp nga bàyyi ci xel boo mënee di def nii sa jollosu surtout boo nekkee ci kër gi wala ci guddi gi muy gën ndax lu ko mooy say bët day teel yàqu ndax ceeñeer gi day indi accommodation bu bari ci li ñuy tuddee rétine bu bët bi ni nag mën nga ko xool ba noppi ñu ñëw wax la ko nga dégg maanaam mooy li ñu la bëgg a leeral tey li ñu indil la yeneen pàcc ba nga xam ni lu jëm ci jollosu gi moom di nga ci indépendant ngir sa jollu su gën am sécurité muy kaaraange bàyyil xel li ñu la bëgg a wax ndax mën na laa fegal yenn ci attaque lu mel ni ki espionnage ci gàttal wala yenn trafic yi bu ñëwee fii ñu bind confidentialité et sécurité nga dugg fii nga xam ni fi leen bind

del moytu lien yi lay yónnee mu hmm. nekk lien yu site ndax lu ci bare bari am na lien yoo xam ne boo ci duggee yow sa jollosu li fi am suba bu ngoon jot di ko siq ak nit wala mbooloo maanaam dalay espionné te yow doo ci xam dara te nag soxlawul sax ngay àgg ci site ba waaye bés nga lien bi rekk mooy yàng ca biir kon lii nañu ko bayyi xel lu ci bare bari nag dañ la ci digum neexal dañ la ci bindal dara loo xam ne dañ la ci xirtal muy naa la ay biyu màkk yu ñu lay may ak ay boo ci duggee da nga gañe nangam ak yooyu nga xam soo ku gëmul yàlla wala ku bëgg lu aram wala lu yomb da nga cey daal ne pataj ñu daan la niib téela di la manipuler maanaam ne def lépp su bu ngoon ñu di ko xam te yow du ci dara waaye bu weesoo foofu itam nga ñëwaat fi ñu bind interdit le suivi su ñëwee lu ci ba da koy fekk ñu def ko nii muy désactiver ko yow nag bu ñëwee da nga koy activer li nag day tax su fekkente ni activer nga ko yenn trafic yi nga xam ne day gaañ dañ koy def muy ñenn ñi nga xam ne dañuy def yenn xeeti espionnage yi di ko jaarale ci yenn ci naviga navigation yi bu ñëwee daf koy recalé maanaam daf koy jëñ ba nga xam ni maanaam piège bi daal mën nga cee bañ a tàbbi ci gàttal niki noonu itam bu génnee foofu am na leneen lu mën a amaat muy fi ñu bind navigation sécurisée boo ñëwee fii nii mën nga bañ a nekk fii ñuy bës tomb bi mën nga cee bañ fekk dara waaye yow boo ñëwee fi ngay indi tomb bi muy fi ñu bind protection renforcée li nag day renforcer sa kaaraange bu connexion itam day yéwénal sëg lënku niki noonu itam yenn site web yu dangereux yi dala koy avertir lu ci bare bari balaa mu ci dugg bu ñu génnee foofu itam ñëw fii ci kaw muy fi ñu bind effacer effacer les données de navigation bu ñu ñëwee fii daf la wax itam ni la historique de navigation ba neexee mën nga ko effacer maanaam

Boko dekoche décoché wala Boko cocher coché historique yu navigation yi manam di faru di deñ di supprimer ou, fini bind et données des sites niki non itam Boko de décoché beaucoup fii ñu la woon boo duggee ba léegi ci confidentialité et sécurité won na li fii ci kaw effacer les données de navigation fii lii ma fi xew mooy bu la neexee nga effacer mboolem recherche yi nga xam ni defoon nga ko ci Google waaye nag foofu itam may na la benn possibilité muy fii ñu bind dernière heure nga tànn ci vingt quatre yi nga mujj connecté wala set derniers jours yi nga mujj connecté wala quatre dernières semaines yi nga mujj connecté muy un mois rek wala mboolem doon yi nga xam ni nekk na foofu bu ñuy fi itam bu fekkente ni da nga bëgg far loolu da nga koy décoché su boobaa day effectuer maanaam boo décoché lii boo ko coché di effectuer historique maanaam effacer la historique bu recherche yi nga def ci YouTube fii ñu def itam cookies et données de site maanaam cookies yi nga xam ni site yi dañu koy faral di def ngir man di am yenn information muy yenn saabal yi ñeel yow booy lënku wala yi ñeel sa jollosu wala yi ñeel yeneen recherche yi ngay def ci yenn site YouTube yi fii boo ko coché mooy déconnecté nga ci coquille yi naka noonu ci yenn site yi ci suuf itam muy fi ñu bind image image et fichier en cache su fekkente ni coché nga ko muy fii nii li muy tekki li nga xam ni espace la woon boo xam ni dafa occupé woon lenn ci sa heure fichier ak image yi nekkoon ci sa jollosu da koy daal di far maanaam da koy daal di libéré li ñu wax lépp nag fii la tàmbalee kon bu ko fàttee ngir boo bëggee amal réglage yi kon lii lu tuuti lay nekk ñu yamale ko tey ci application bii di Google ëllëg nag mën na am ñu indil leen ci leneen waaye dana leen indil ci compte Gmail yi réglage yoo xam ne di ngeen ko ci def ngir seen jollos yi muy seen appareil yi gën a nekk ci sécurité waaye ci yeneen wàll maanaam ci ay wàll yu différent yoo xam ni daal am na yaakaar ni dana leen amal njariñ am na ci nag yoo xam ni wala ñoo xam ne ay exception la ñuy nekk ci règlement bi ndax xëy na liggéey ba ñu def mooy tax waaye ñooñu mën na am daañu ci xam dara kon nga teewlu bu baax sunu vidéo bi nga ma bàyyi xel lii ndax fi jamono toll mën na la amal njëriñ lool